jàngal Alxuraan fi kanam suñu tubaab yi taalib ay taalibam lañu ñoom seenu taalib waaye ñun tam noo ngi lay ci biir jataay bi tey bu mu yem ci ñun bu mu génnee kon tas na ci aajoom fajuwaale barkat Cheikhul naar bu ñu wax ci Abdallah doomu Cheikh Sidi yàlla waaye ñoom sëñ Moussa doon ko wax ko naa nga jox ma turu yàlla yi leen fi seen bàyyi bàyyi ma jox la wenn tur ci yi leen fi suñu bàyyi bàyyi lu ñu fi bàyyi ci suñuy bët la ko def lu ñu xool naa ni damu yóbbaale ko wax moom maa yoon sax naas fa yoon ko suul art yàlla nag ñu ngi koy séentu ci yow di ko ci yaakaar te am yàqin bu baax it ñu ñu bëgg bët boo ko xoolee bu ñu génnee kon tasee ci njaboot bi aadoon faj ndax mbooloo lañ bopp te ñu néew lañ ci biir mbooloo la te bëgg noo dem bàyyi kenn loolu daal ñu ngi ko doon sàkk bu baax a baax